ñu ngi leen di jaajëfal mbokk internet ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci sans limite ak suñu plateforme digitale yëpp di leen ci dalal jàmm di leen dalal ci seen ëttu xibaar yi bëccëg ñu ñëw ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi ab étudiant buy wuy ci turu ay Joël Célestin Philippe la ñu fàtt bakkanam fële ca université bu Ndakaaru benn ci ay professeur am nag daal ci di nañ ko jukki ci xibaar yi Magal Touba 2020 adiya bi nga xamante ni moom la soxna Aïda Diallo daal di jëloon rek bëggoon ko jox euh, xalif général des Mourides ak kile di Serigne Bass Abdou Khadre jamono ji nag dañ ko ka mujjee delloo te it nag xamal nañu ne dafa mujje rek tànn beneen bërëb ngir mën a faa defee màggalam moom soxna Aida et puis Carnet Rose ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, Salma bu nekk animatrice bu Sen TV ak kile di euh, Sala nekk actrice Pod et Marichou ñoom nag semaine bi ñu génn lañu am borom kër coronavirus fi ci Sénégal tey ci altine altine bi ñaar fukki fan nag juróom ñett ci weeru septembre Sénégal amati lu yemook fukki cas lu ñeel wàllu coronavirus mu doon nag ñetti ka contact benn cas importé ak juróom benn cas issu de la transmission communautaire mu ngi noonu ñu ñëw ak nak ci jukki gi daal di koy tàmbale nag ak tiis bi nga xamante ne nii moom moo am fële ca université Cheikh Anta bu Ndakaaru ab étudiant bu bu doon wuy ci turu Célestin Philippe lañu faat bakkanam ni ki gaawu bi ñu génnee ci boor yi 21h moom nag dafa doon dem ci biir université ba daal di rek jaar ci petite porte bu UCAD boobule foofu rek la ko ay agresseur fekk daal di koy faat benn ci ay professeur am nag la mu xamle rek mooy depuis licence 1 wam moom moo rek mës a nekk major de sa promotion ba jamono ji rek mu amoon li nga xamante ne nii mooy diplôme am avec mention très bien loolee nag di firndeel ne jàngkat bi di ay Joël nekkoon na koo xamante ne nii eh, mënoon na jàng loolu ba sax nag mujjoon na def li nga xamante ne moom mooy soutenance am soutenance de master en agroforesterie waykat bi la di Aïda Samb indi ay leeral ci li nga xamante ne ni moom la ñu waxoon ne moom moo ko wax ni rek dafa bëgg jëkkër moom nag ci benn plateau Télé Futurs Médias ci émission Kakatar la xam ne rek moom warul di wax ne dafa bëgg borom kër ndax it nag lambul waaye nag bu ko yàlla dogalee rek incha allah dina am li nga xamante ne moom mooy borom kër. Euh, ba tey nag ci wàllu sëy kile di Salma nekk animatrice fële ca Sen TV ak kile di Salla nekk actrice série Pod et Marichou ci ay bésu weesu nag la ñu euh, am borom kër ginnaaw ki nga xamante ne moom mooy euh, Sumbulu ñetti célébrité yi nag nga xamante ni ci semaine bi ñu génn la ñu dugg néegu sey ñu ngi leen di ñaanal rek lépp barkel bokk na itam ci li gën a fës ci xibaar yi mbiri coronavirus fii ci Sénégal mu mel ni rek tey ci altine bi ñaar fukki fan fan ak juróom-ñett ci weeru euh, septembre si juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent te yi nga xamante ne ni moom la ñu amal fukk ñoo ci ñëwaat positif mu nekk nag ab taux de positivité de 1,8 pour cent cas positif yooyu nag doon euh, ñetti cas contact benn cas importé ak juróom benn cas issu de la transmission communautaire transmission communautaire yooyu nag santuñ ko gis moom mooy di Fann Bel-Air Kédougou Khombole Mermoz Popenguine ak Sicap Dieuppeul ba tey nag ci mbiri coronavirus wàññi nam itam lu tollook téeméer ak fukk ak juróom-ñett ci ay nit yoo xamante ne ni hospitalisé woon nañ leen daal di leen mujjee contrôlé négatif ñu daal di leen bàyyi ñu dem ndax it nag amee nañu tan fukk ak ñeent ci nga xamante ni nii ñu ngi fële ca Sowétas benn nit moo faatu nit ki démb ci jàngoro coronavirus ba fi mbas mi duggee ak léegi nag wàññi nañ lu yemook fukki junni ak ñeent yu tekk juróom ñeenti téeméer ak juróom ak fukk ak juróom ñeent ci ay nit yoo xamante ne nii jot nañ laale ak jàngoroy coronavirus ci ñooñu nag fukki junni ak ñaar yu tekk ñaar téeméer ak fanweer ak benn ci ay nit yoo xam xamante ne nii amee nañu tan ñetti téeméer ak juróom ñeent ci ay nit yoo xamante ne nii ñàkk nañ ci seen i bakkan ak it nag ñaari junni ak ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ñett ci ay nit yoo xamante ne nii ñu ngi ci loxo loxoy docteur Magal Touba 2020 addiya bi nga xamante ne nii moom la soxna ay Diallo daal di rek bëggoon jébbal ki di xalif général des Mourides ak it nag Serigne Bass Abdou Khadre jamono ji nag ñoom dañ ko ko delloowaat addiya boobu nag tolloon na ci eh, téeméer si ay nag ak it nag ay maletu eh, xaalis ñu buggoon ko jox rek ki nga xamante ne moom mooy xalif général des mourides Serigne Mountakha daanaka délégation bi nga xamante ne nii moom la Serigne Saliou Samb àndaloon eh, mu jéewoo ñu toog ki nga xamante ne nii moom mooy Serigne Mountakha eh, Mbacké ngir mun ko jébbal addiyaam boobule naka noonu nag ki di Serigne Bass Abdou Khadir itam nekk porte parole lu xalif bi moom it nag daanaka addiya bi nga xamante ne nii moom la ko soxna Aïda Diallo bëggoon jébbal te mu doonoon rek juróom-ñeenti fukk ci ay nag ak it nag ñeent fukki million ci suñuy dërëm daanaka moom it daf ko waat kazalika waa kër Serigne Cheikh Saliou Mbacke mi nga xamante ne ñoom it dañoo waat fukki nag yi nga xamante ne nii moom la leen soxna Aïda Diallo daal di leen woon yóbbante ba tey nag ci mbir soxna Aïda Diallo moomile mu mel ni rek ci xibaaru ñu jot mujj na tànn beneen bërëb ngir mën faa rek feete li nga xamante ne nii moom mooy màggalu tuubaa bi nga xamante nii le 6 bi ñu dëgmal lekk la ñu koy def moom nag bërëb ba mu tànn rek moom mooy di Medinatul Salaam Aïda Diallo moom nag daanaka moom ak ay taalibeem dañ leen wax rek ni mënuñoo célébrer li nga xamante ne moom mooy màggal fële ca ngaabu ndaxel nag dafa bañ a topp ndigal li nga xam ne moom la ko xalif général di daal di jox te mu nekkoon rek mu topp ci ginnaaw ki nga xamante ne moom mooy Serigne Saliou Thioune dañuy desani ba tey ci mbiru ki nga xamante ne moom mooy soxna Aïda Diallo mu mel ni nag kuréelu imam yi ak arabisant bu euh, Touba dañoo rek rangé wu ci ki nga xamante ne moom mooy soxna Aida ndax it nag jàpp nañu ni moom dafay contribuer bu baax a baax ci màggalu euh, Touba bi. ki xamle loolu nag muy muy doon le président de l' association euh, des imams et arabisants bu Touba di wuyu ci turu Serigne Cheikh Sall. mbokk internet yi foofu la ñu jaaxle rek daal di ndar képp xibaar yi ba cëg bi cantangërëm ñeen leen ci ànd bi ngeen ànd ak ñun di leen jox dig daje ëllëg jërë ngeen jëf